béggee nañ leen monde turfis isma daa kaana Ali Thiaw meen ara Ibra Degen ye Ousmane Camara ñu ngi lay béggee béggee nañu wax sa xalaat écho des hippodromes jaajëfal maa ngi toog ak kenn ki nga xam si ne kenn la ci course hippique muy Mbaye Diène Mbaye ku ko xam xam ko ci course hippique mu bokk ci membre CNG di membre CNG waaye gëjoon nañ ko gis ndax moo ngi woon foofu ca France waaye di la wax pourcent yi nga xamante ni ñoo fi ñoo lekk jullee moom moo koy indi muy mbay Diène mbay mbay nuyu naa maa nga lay fay Perse di nuyu maar suma xarit mais maar laay nuyu nag pas yow yow doo sama xarit man maara sama waay. Mbaye tey dawal nañ li nga xamante ni mooy deuxième journée ak waa comité national de gestion des courses hippiques président El Hadj Cheikh Tidiane Niang ko en tant que membre CNG nga ñëw fii nga xamante ni mooy deux deuxième journée bi fii ci hippodrome El Hadj Ndiaye Macodou Diop tey bi nga ñëwee lan nga yëg ak waa comité waaw maa ngi day maa ngi nuyu di ñaanal président si euh, Tidiane na yàlla yëkkati ko ba mu delluwaat si njabootam di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram si daraje Seydina Mouhamad euh, course bi nag première euh, rentrée bi fekkuma fi deuxième bi moom fi fekk ba ma ñëwee nag ñëw naa seetaan si gis naa ne course bi neex na. course bi neex na lan ngay wax waa comité bi ndax namoon nañu course entraîneur yëpp namoon nañ ko. parfois yëpp namoon nañ ko ak yi tey lan ngay wax ci loolu. waaw lu mu siy wax mooy comme yàlla def na ñuy bigoo si bisimilahi rahman rahim nañ ñaan yàlla ñu ñu terminé ko si alhamdulilah rabbil alamin quoi. na matuñ yaaya jàmbe ndax jaane ngi fi naa seeti major jaarale si général bëggatuñ football basket te du bëre dóor bàyyi nañ lépp léegi topp naaru góor bañi daaw neel macha allah xam ngeen ne duma yéen kon ne leen taal ñu rafet njort jot aminu uma toi et moi nañ yéen a rasul dolli Medina barke ñëpp ne laaw la cat jàmbaaru taal bu yàlla taal ci réew mi maaraadu xafaal te wóor na àdduna béti baawoo doy leer na diaspora même weeru koor sax damay seetaan dalin moom bis bu rawee dem si pesantor Sénégal baba deray der wane ko seen TV yokku na rythme am satu der la al bu rax di bàkka tari yaaba fàttali ma am ne deux ans arif yaaba course hippique sama kona néega ñii ñooy course la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg. ñii ñooy. course hippique la ñu bëgg. ñii ñooy. course hippique la ñu bëgg ci tournoi basket bi. gars yi ñoo ngi ci tournoi basket bi léegi ku mel ni Doumayeen moo nekk Doumayeen moo génn. duma yéen moo génn Baye Manga duma yéen moo génn ba léegi ci kanam ñu ngi noonu di romb tournant 200 mètres bi Cheikh Wade duma yéen Cheikh Wade duma yéen moo génn. waaw duma yéen moo génn moo ne ci kanam à deuxième position Omar Bao à deuxième position Nabou Salam Fa à troisième position Omar Bao ba léegi duma yéen moo génn. waaye léegi kii di duma yéen moo qui gagne, génn moo deuxième position bi mo nek Nabou Salam Fall Nabou Salam Fall troisième position bi mo nek euh, Omar Bao gars je ñoo ngi ci professeur Sakhir Thiam waye ku melni talisman ñëw na def na avancement mo ngi quatrième position bataille, gaay gars ñoo ngi ci 500 mètres bi ki mel ni deuxième position ka fa nek mo nek Salam Fall troisième position Omar Bao quatrième position. moo nekk talisman duma yéen moo génn ba léegi duma yéen mi ngi ci digg tàllal ma en deuxième position Nabou Salam Fall en troisième position euh, Omar Ba ak quatrième position Talisman duma yéen mi ngi kanam duma yéen bu sunu maam Ibou Kole Ba mi ngi ci kanam en deuxième position Nabou Salam Fall Cheikh Wane. duma yéen moo génn en deuxième position Nabou Salam Fall waaye ba léegi Nabou Salam Fall bàyyi ko mu ngi sëkkatoog duma yéen ba léegi en troisième position Omar Bao quatrième position moo di Talisman moo fa ba léegi duma yéen moo ne ci kanam ba léegi duma yéen moo ne ci kanam duma yéen mi ngi ñëw duma yéen mi ngi ñëw mi ngi tol si 200 mi ngi toll si 200 mètres bi ba léegi duma yéen moo ne ci kanam en deuxième position Nabou Salam Fall troisième position Omar Bao dafa mel ni Nabou Salam Fall génn na dafa mel ni Nabou Salam Fall dina tàng attention attention waaw Nabou Salam attention duma yéen duma na attention les juges attention les juges waaw koso attention les juges parce que qui di duma a ak Nabou Salam Fall dans ànd parce que qui qui kii que qui di di Salam passé mo mais bipa, pa dafa al duma yéen dañoo tableau bi deux euh, Omar jël troisième quatrième bi que talisman 2 Souleymane Diagne maître Souleymane Diagne nekk vice président CNG course hippique maître Nyongi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Diallo. fi mu arrêté bi euh, le 31 décembre lay jeex organiser ngeen ñaari journée ci lo xamné ci seen coobere la ngeen di génné seen xaalis di ko def arrêté bi jeex na euh yeen procédé ngeen di def bés yi nga xamné mo nek nekk suñuy kanam. waaw bala may ñew ci li nga xamné moy jëm ci li ci kanam. Nous avons une motivation pour nous faire ubbi Arrêtez de arrêté Le euh, premier ministre a assuré un intérim au ministre des sports jël benen le 6 octobre Il a signé mu war a le 31 décembre à 0 h dafa am ñaari mbir yu tax.

Covid jaar na fi euh, problème Ukraine également jaar na fi bien que mënuñu jël lepp yan len ko mais li conséquence bi moy ku ne jàpp na ni lu way mën ren bu déwénee xeyna bo boo mënee genn wàll gi ca ngay yam té entraîneur ak choqué ak ñi nga xam ne ngi dund ci fas euh, ma rappelé ni fas course bu ne lu mu bon bon ñenti famille a ngi dund ñu bëgg rendre hommage ki nga xam ni président Cheikh Tidiane Nian. am lu ko dab mu am empêchement ñu renouveler que Tafal Oumar Baawo ci moom mu jël intérim d'office loolu aussi dama bëgg mu leer bu ñu nommé Cheikh mu tëdd je pense que cër pour ñun wareef la obligation la pour que ñu fexe ba nous fa mu des ñu sagal ka course des taxaw lolu ci li tax course yi lolu ci la bok ñaarel ba nous entraîneur yi nga xamni yaakaaru ñu ci luddul li niñ ko dañ ko ci yoon ndax intérimaire mais des leneen lo xamni bu doxal yoon itam buñ ca àggee dañuy taxaw ndax arrêté bi suba lay yam donc en tout état de cause fexe nañu ba. sëll yooyul giir demul ak nen li ci dess nak mi ngi ci walu autorité yi ñoo ngi len di déglu ñom ñoo ñuy gindi wax ñu fan lañuy tek sun sank wala wax bi mom gudd mu gàtt lol la nek capitaine Thomas Sankara domou Léppic la Léppic nek domou Bari Gari numéro 2 El Capo nekk doomu Honor and Bliss Honor and Bliss nekk doomu Igesso Honor numéro 3 nekk Abdourahim nekk doomu Soleil de Minuit Soleil de Minuit doomu John Quart numéro nekk Diofior nekk doomu Prince and Joy Prince and Joy nekk doomu Dark Angel numéro 5 nekk tawfeex doomu Atek Sires Lo la Atek Sires Lo doomu Monson la numéro 6 nekk Lat Fatim nekk doomu Seeman Force nekk doomu Bull Air waye nak 1650 mètres la ñuy raw té 1650 mètres dafa am ay fas yo xamanteni ay distance lañu gaay gars yi jóg nañu gars départ ba daanu na départ ba daanu dàq nañu ki nga si El Capo mi ngi nonu ñoo ko deuxième position ki xamanteni xamante ne si mooy nekk première position di Lat Fatim waye El Capo moo nekk deuxième position. waye door nañu Lat Fatim mu genn El Capo ñew na fuk Fatim genn na deuxième position El Capo mo fa ne. El Capo doomu Honor and Biz la Iguesso Honor euh, Premier position la Lat Fatim moo fa ne doomu Seeman Foss la Seeman Boul El Foss la gaa ci 200 mètres bi ñoo ngi le tournal culture. la Couture waaye gaa yëpp def nañu benn tank. waaye Lat Fatim ba première position deuxième position ba ka fa nekk El Capo troisième position ba ka fa nekk nekk Abdourahim waaye Diofior mon ngi troisième position Diofior Tawfekh mon ferme la masse. Wow, bataille la Lat Fatim en première position deuxième position ki nga xamante El Capo troisième position nekk ki nga Abdurrahim. ne si si tournant le professeur Sahir Chambi. Binjab, di njaab njaab lu neex ndeysaan waaye ba position. Fatim El Capo déclassé El Capo déclassé El Capo El Capo El Capo Lat Fatim El Capo en première position Lat Fatim en deuxième position. Ouais, El Capo génn deuxième position Lat Fatim troisième position Djofior quatrième position Taufer léegi cinquième position Abdourahim sixième position capitaine Thomas Sankara Mofane. El Capo génn na Tawfeex Djofior ngi première position, tu tournes première position ci basket deuxième position El Capo troisième position Taufer Mofane, quatrième position Lat Fatim cinquième position ah. gars yi est offert on est nañu Tawfeex déclassé on est offert avec Djofior là Diofior et Geoffior El Capo en troisième position Bataille tey Monek en première position deuxième position ki nga xamante ne si moo di grand prix chef de l'état ki nga xamante ne El Capo Monek, troisième position gaa yaa Bignoué, ñëw bu ñu Bignoué, dañuy téye gaa yaa dawal ah gaa si gaa si première bi deuxième Taufer, troisième El Capo

tey gis ngeen amoon nañ fi cinq catégorie gis ngeen catégorie fi am gis ngeen course yi neex waaye ñu ngi félicité bu baax Omar Ba si ci ndab li nga xam si ni am na ko ci grup 2 bi ak naaru góor ñu ngi félicité bu baax les frères Ndiouk ci ndam yi nga xam ne xam si ni am nañ ko ci poulets de deux ans ak poulets de trois ans di leen wax lii mooy course nana bokk day bokk bàyyi bala maa tàggoo damay nuyu sama xarit sama doomu ne Cheikh Wade tey lan ngay tàggoo yaa ngi seen émission jaabal lii lañ leen indiloon samedi le 30 décembre fii ci hippodrome El Hadji Ndiaw ma Codou Diop di wax ni dawal nañ ba tee ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di nuyu ki nga xamante ne si moo di président Cheikh Tidiane Niang di félicité bu baax Omar Bawa Junior di félicité waa écurie Ndiouck Ndiouck yi ñoo leen félicité bu baax di wax ne rek lii lañ leen indi woon tey samedi. di félicité bu baax baax koso sam koso moo cousin di nuyu Babacar Mar le pro kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ba prochaine dimanche inshallah allah. jërëjëf euh, Cheikh Wade ma ngi nuyu bu baax sama cameraman bi nga xamanteni mom quand c'est toujours c'est Babacar Mar quand c'est sérieux c'est Babacar Mar lu bëgg leer ak lu ni leer moo koy wane ma ngi koy nuyu di nuyu mbokki jàppal di nuyu sama directeur Bougane Gueye Dany mi nga xamanteni ni ma permettre ma ñëw fi seen dem ko sa mbay pex jàmm ci course yi waaye yàlla na yàlla def jàmm ci réewum Sénégal.